rappelel que ni ñun kenn ci ñun du politique et aussi gis nañu ni démb front bu ñu fi ay nit commencé nañu wax ay mbir di yàq suñu der nañu dégluwante ak xel na na gars yi bay commentaire du ñuy def te xamuñu lu xew ku bëgg xam li xew nag ñoo déglu bu baax parce que ñun lu ñuy def Ziguinchor moo tax ñu koy def du Sonko moo tax ñu koy def du Doudou du keneen ak keneen ñun li ñuy def on le fait pour la commune de Ziguinchor euh, dafa am benn immeuble bi nga xam ne bu ñu am ak mairie Euh, immeuble yi nga xam ne benn contrat mu ñu lii ak mairie Ziguinchor bi immeuble bi mi ngi logé 150 étudiants te maa ngi rappelé ni suñu demande parce que ñun caravane ñun benn plateforme la ñuy créé plateforme bi nga xam ne fa la ñuy recensé suñuy étudiants yëpp ñu leen di logé ci biir plateforme bi année bii nii on a recensé 516 étudiants si 516 étudiants yi 150 yi rek dañu mën a logé yeneen yi des am na ñu abandonné parce que amuñu fi famille dëkk yi Dakar am na yeneen ñi nga xam ne dañuy def navette dañuy quitté Kër Massar du fisc ñuy quitté di ñëw di def la navette pour ñëw jàngi si léegi immeuble boobu noonu tey jii nii fu étudiants yi nekk dañoo menacé d'expulsion comment on en est arrivé là loolu la ñuy di jéem a expliquer depuis juin 2021 ba juin 2022 mairie bi fayagul dara ci location immeuble bi léegi ñun bu ñu faloo novembre 2021 la ñu ñëw fekk fi problème bi Ablaye Balde moo fi newoon ñu ñëw janvier ñu ne ñu. Ablaye Balde nekkatul maire parce que actuellement dañu tëj lépp mënatul def dara ñu ne ñu ah ok yéen da ngeen nelaw ba gars yi tëj dañuy defal point de presse ngeen comprendre bu ñu demee Ziguinchor ñëpp ñu def mobilisation pour def point de presse Doudou Ka rencontré ñu mu ne ñu lan moo xew ñu expliquer ko problème bi bu ñu problème bi Doudou Ka ne ñu man de dama di may xaalis pour seen caisse pour ngeen subvenir parce que dañu ko expliquer les problèmes étudiants yëpp mu xaalis pour seen caisse mais xaalis boobu noonu bu ngeen ko jëlee ngeen fay la waaw mais man may naa ne daal xaalis te Doudou Ka il est intervenu aussi dans ce but pour que étudiants bu ñu leen ñu jël xaalis bi ñu fay location bi léegi bu ñu fay location bi dañu doon xaar parce que maire amagul élection sax amaguñu jamono boobu noonu léegi bu élection yi amee fekk Sonko moo falu léegi le maire Ousmane Sonko bu mu faloo on a été en contact avec certains de ses proches collaborateurs ku ci mel ni Abdou Sané nee leen réponse xam ne Abdou Sané yu ñu jox pour la première fois man may entrer en contact avec un proche de Sonko réponse ni ko actuellement vous venez d'être élu donc dañu bëgg entrer en contact ak yéen wax leen li xew pour que ngeen xam ne il y a un contrat qui avec vous te lii ak lii ak lii moom moo fi jot a xew Abdou Sall ne ma man lépp lu jëm ci mairie bi sama yoon nekku si si ma ne ko léegi vu que yéen xamante ngeen seen mbir même moi rapport avec quelqu'un ki nga xam ne man dinaa mën a wax ak moom ma yëgal ko affaire yi mu ne ma si tu continues de parler de la mairie damay damay damay je vais raccrocher au ma ne ko ok maa ngi jégalu ma coupé téléphone bi Abdou Sané moo ma répondre lii mais ñu calmé bu ma waxee élément yëpp ñu calmé wu malgré frustration yooyu yëpp ñu calmé wu moo woo Bassirou Diomaye Faye wax ko Abdou Sané li ma wax moo woo un certain euh, responsable de Bayro je pense de Bignona si je me parce que moo ma jox numéro Abdou Sané ma la ma Abdou Sané tontu Abdou Sané il s'est précipité dal dire à Sonko que ni ñun mënuñoo wax ak mag Ousmane Sonko keroog bu ñu koy rencontré le maire il nous a dit la la tey jii nii ñun étudiants yi ñun ñoo war a nekk autorités yi parce que ñoom ñoo xamul li ñuy waxee loolu day nekk li nga xam ne lu doy waar. bu ñu waxee ak Abdou Sané ba pare on a rencontré un autre le sixième adjoint au maire le chargé de la jeunesse le représentant de la jeunesse mooy Bassirou Koli Bassirou Koli tamit bu ñu ko expliqué problème étudiant yi expliqué ko lépp mu ne ñu ok ils vont prendre cela en charge loolu mi ngi xew entre diggante euh, février mars avril ñuy négocier toujours en toujours on est en contact avec lui problème musul am ba yëgaluñu ko ko ñuy naxante ak ñoom ñuy naxante ak ñoom di négocier di dialoguer te tey gis ngeen ni ñi ngi génn ñu naan ñun on est corrompu six mois ñu toog ni yëpp ñu ngi réclamer suñu cinq millions ñu réclamer tamit suñu subvention même le contrat n'a pas encore été renouvelé parce que tur Abdoulaye Balde moo fa ne ba tey alors qu'il y a un nouveau mec qui s'appelle Ousmane Sonko yéen a ngi gis ci loolu lépp ñu koy muñ di rencontrer leen fi dañ fiy feebar ñu leen di évacuer parfois ay 5 cas d' évacuation la am da ngeen ne classe ñu wala ñu ne sa étudiant dafa feebar ñu ngi nañ ko lu ci gën a grave benn cas bi nga xam ne sànq ni fate naa ko mentionné sax il y avait une fille euh, moom dafa ñëw fii amul famille d'accueil mu ñëw fekk immeuble yi fees mu ñëw mën nañu jël ko ñu ne ko mënuñu la jël parce que dafa fees Malika la duggee nekke Malika fa mu nekkoon dafa nekkoon ak petit ami am copain am bu góor seen kër si famille kooku la nekkoon mu doon quitté Malika di ñëw dem ba mu am problème ak famille noonu étudiant bi ñëw ikat mu doon fanaan fi ci biti jigéen mu doon fanaan ci man maa ne ñu woo ñu ne ma yaay une étudiante de Ziguinchor bu jigéen bu fi ne di fanaan te keroog je pense que keroog la Dakar enregistré woon premier pluie am taw taw premier taw Dakar keroog lañ ko enregistré ñu woo ma expliqué expliqué ma cas boobu moom parce que ay bagages am dañ nekkoon ci biti te am na ci ay bagages yi nga xam ne yu tooy maa ngi woon classe ma quitté lépp ñëw rencontré ko mu expliqué ba di jooy ma bi ma ne ko place am na amul xaw ma lan nga def kii di jël parce que am na cas yu mu doon insisté PC ni ma ne vraiment dafa fees mënatuñu jël te immeuble bi étudiants yi ay ventilo chambre yi actuellement tàngoor gi day day métti si ñoom noonu lañu jëlee étudiant ci anam yu métti yooyu ñu dugal ko te bu weesoo étudiant boobu noonu moom dafa gore cest dafa am njàmbaarte elle a voulu bugul abandonné mais am na ñu bëri ñu nekkoon ci situation xam ne ils ont abandonné elles ont abandonné nga xam ne parfois dañu ñu ne am nañu concours ñu ne ñuy bay bu ñu rencontré Sonko yàlla moo ma seede bu ñu doon si ci bato bi laa rencontré kenn ki nga xam ne ci liste d'attente bi la nekkoon ñeeñ bay dañu permettre ñu ñu jël ñooñu noonu ñu dugal ñu leen kaay leen place ay jigéen lañu du ma wax seen tour mais ñoom xam nañ ko ne ko deuxième bu ñu fi ñëwoon bu ñu la pour rencontrer la rencontré wuñu la bu ñu doon ñibbi dañu jëloon ñeneen ñaari jigéen yi nga xam ne liste d'attente ñu doon toog parce que ñu doon ñëw nga jàng 13 ans

te booba tey ñu ngi koy topp ci loolu surtout loolu bokk nañ ci li ñu gën a frustré imaginel 20 millions yow mu may beneen 5 millions 500 moo tax ñu war a expulsé tey étudiants yi ani logique bi dans ça pourquoi on nous dit ñun ay on a été corrompu ñu génnee étudiants ñu bëgg ñu toog ñu croiser les bras pour kan parce que on a on bi nga xam ne ñëpp ñëpp a ko ragal te pourtant ñun suñu éléments yi bëre bu fi Sonko wootee ñoom ñooy ci front yi ñu front dem service parce que c'est les étudiants qui sont blessés te mi ñu mel ordonnance yi c'est pas lui ñu jël ordonnance en charge donc nañu bàyyi yéen wax yi danañ comprendre il faut que il faut que les gens comprennent situation bi du mu fa demee léegi après loolu yëpp di jot a xew noonu on a négocié négocié négocié bu juin bu mu jotee ma ne leen na ngeen gaaw pour que lu jot lu jot a xew ak Balde bu mu amaat parce que Balde dafa toog ba affaire jot mu bëgg a fay ma ne leen début juin na ngeen dugal nii mandat bi comme ça xaalis bi yéex a yéex a yéex fin juin day dugg ngeen mën a finaliser ñu ne ma ok mais man j'ai été étonné d'entendre un vocal de Bassirou euh, Koli bu mu balancé ci benn groupe di moom ñun ñoo ko yéex a envoyé reçu reçu paiement je pas quel reçu la doon wax noonu te moom vendredi la ma woo vendredi passé bii la ma woo je prends encore yàlla moo may témoigner vendredi la ma woo Bassirou Diomaye depuis début juin yow vendredi nga may woo pour ne ma ma le reçu vendredi c'était vers 13 heures Bassirou Koli ma envoyé ko. reçu bi parce que dafa ma woo même pas deux bi même pas mosul sax deux heures ñu ñoo ko tardé envoyé reçu te moom diffusion lañ ko wax mu toog ba vendredi écart u deux heures boobu mu ne ñun ñoo ñun ñoo fautif comment ça ñun te moom 13 la ma après julli bi juste ma envoyé ko bi mu ne ci vocal am mun nañu envoyé vocal bi ngeen déglu après bi su fekkee ñu ñu leen di wax nañu bi ñu rencontré leen ñu leen nañu prendre ñu koy question bi